تسير غيث يفر asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen groupe istikhama point org moo dikkaat tey di leen indil màggaluk Mbàkke Kajoor atum 2013 mi ngi amoon nag àllarba fukki fan ci weeru avril atum 2013 dëppoog ñaar fukki fan ak juróom-ñetti ci jumaadal ula di maamu koor kon loolu lañ leen bëgg a indil muy liggéey bu dey boo xamante ne nii seen groupe istixaama jëli li leen leen ko danañ leen indil itam ziar yi nga xamante ne nii lépp am na fa ci kër xalif général des Mourides sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàgg lool te mu ànd ak wér gis ngeen mbooloo mu noonu euh, kër gi fees dell ku ne bëgg a sëriñ bi ngir moom mi nga xamante ne nii moo fi kutaayu xaadim rasool ci kaw suuf ku jàkkaarlook moom sa njàqare wàcc euh, lépp loo xamante ne nii soxla la boo indi woon nga ñaan ci suñu borom yàlla mën la koo fajal kon ñoo ngi nii ci kër xalifa général des mourides di leen indil reportage boobu euh, ci ziar bu mag bi nga xamante ne nii moom lañ ko doon def ci bis bi loolu itam biñ ci jógee danañ leen indil waxtaan wu rëy woo xamante ne nii seq nañ ko ak Serigne Abo Aziz mi nga xamante ne nii moom itam ci commission bi la bokk doon sët ci euh, Serigne Mouhamadou lamin Bara Mbacké bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom lañu booleeloon ngir ñu def ñun ay waxtaan buñ ci bàyyi ko itam danañ leen indi leneen waxtaan woo xamante ne nii teg na ci kon ñu dugg ak yéen ci biir ziar bi. fekk nañ fa yeneen daayira yëpp di ziare ñi ngeen di dégg ñuy jàng ñooy waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos kon ñu bàyyi leen tuuti ci ziar yooyu ba ci kanam tuuti ñu dikkaat ci liggéey bi. waaw kon ba tey ñu wéy ci ziar yi ñoo ngi fii ci kër maam Asta Mbàkke moom sëriñ Baara gis ngeen noonu taalibe yi ñoom itam euh, toog ñëpp di def seeni i ziar. sëñ eh, soxna si di leen ñaanal waaw kon ba tey ñu wéy ci ziar yi daayira yi ñoom itam muy daayira soxna yi daayira góor ñi ñëpp àndandoo ñëpp di ziare yi eh, nga xamante ne nii ñooy ñooy sëti sëriñ Baare yi. kon ñu dugg ak yéen ci waxtaan wi nga xamante ne nii seq nañ ko ak sëriñ Aziz moom sëriñ eh, Abo te mu nekk ca Ndakaaru ca Yëmbal moom def nañu waxtaan mu am solo moom lañ leen bëgg a indil nii. وارزقها بك وسريتها من الذي ربي امسك محمد صلى الله عليه وسلم ربي اياه درون والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وخدمه وسلم تسليما ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bis bi nag liñ ci laaj am na taarix bu am solo bu daanaka murid yu bari xam nañ ko ndax doomi sëriñ Touba rek doy na bisam jara fekk nitu yàlla seen bis dañuy wax ne fu ñu koy fu ñu leen di tudde rek yàlla dafa wàcc yërmande waxantu baak fu ñu daje di leen di leen sant ndax bis bi bisub sant la moom la sëriñ wax ndax sant la ci wet ndax bi sëriñ Baara ganee àdduna fii ci Mbàkke Kajoor gii la woon mag ñu bari fi lañ nekkoon ni murit wàccagun sëriñ bi woone leen mag ña ci gën a fés sëñ daama Abdourahmane Thiala sëñ Assane Thiala sëñ Daaru Assane Thiala maam Cheikh fa làmp Lamp Thiala ak mag ñu baree baree baree baree bari sëñ bi ne leen gan gi ñëw indaal na li ngeen doon wut ci seen borom. ak Rasulullah sallallahu alayhi wa kon bis boobu bis bu am solo la bisu mbégtale woon ci sëriñ bi bisu mbégtale woon ci yoon wi kon bu nu yàlla mayee tawfiix yi ñu dem ba fekke bis boobu ñun di ko màggal kon sant yàlla la. ndax bis bi ca ca buñ njëkk cosaanam ñu ngi doon màggal bisub dem ba muy benn fan tabaski waaye bis seex saalihu ñëwee nga xam ne bis yooyu da ci am ngaan ci la ko sëriñ bi wëlbati indi ko bis judd bi nga xam ne kon te bisu judd bi moo dàq fuuf bisu dem ba kon daal sant na yàlla ñun la may tawfiix ñu fekk ko te jàpp ne dëkk bii rek li li li li fi liñ fi jaamu yàlla ci ci gaañu baax ndax ba ko borom dëkk bii sanc bañ a bañ a bañ a jege bu ëpp ngir di fi eh, te booba mi ngi àtteel uh, eh, buur bi nekkoon fii ci Cilmaxa Lat Joor nga xam ne bëgg a eh, ñoŋal diineem ak njabootam bokk na ci sabab dëkk bi ak déqali kon maamoor mi ko sant jaamu jàngale ak arxuraan ak yare moom la ma tax muy dema dema dem ba sëriñ bi ñëw nag feeñ yëpp yàlla ca la fii it male woon na ko leen yar ci jàngale donc de yar ci himma yëkkati leen bañ mën a dem seen borom bis booba lañ naan daara ja tas waaye daara tasut dafa am leneen lu ci yokk ndax booba da jàng la sëñ bi xam le ne ku fi jàng dong indi woon man ngaa dem wuti foo jàng waaye ku bëgg a jàng borom nag mën ngaa toog ñan ñu bari dem ñu bari desu desoon ñëpp fi mu nii kenn ku nekk bu nga ne eskay ndax defar na leen bañ defaree bañ kon loolu daal ci dëkk bi la xewoon mooy bisu juddu seex Mouhamadul Amin ñetteelu doomu xaadimu rasul ak soxna Ami di rakki seex Mouhamadou Moustapha jërëjëf sëriñ Aziz euh, sëriñ Abdoul Aziz Mbacke moom sëriñ Abo Mbacke moom sa sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moom Xaadim Rasoul ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne ni indil nañu ko muy euh, liggéey bu rëy bi nga xamante ne ni euh, taarixu màggal gi la waaye itam di taarixu sancum Mbacke Kajoor kon gis ngeen mbooloo maa ngi noonu ñoom itam ci barab bi nga xamante ne nii mooy barab bi cosaan yi nga xamante ne nii am na fii ci Mbacke Kajoor. ñu dellusiwaat kon ci kër sëriñ bi kër xalif général des mourides rang yu gudd di fa am ñëpp di ziar bëgg gi sëriñ bi nga xamante ne nii mooy wàccee njàqare yi kon moom lañ leen di bëgg a indil ñu bàyyi leen ak ambiance su yooyu kon ba ci kanam tuuti ñu dellusiwaat ci biir liggéey bi la jërë ngeen jëf mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ba tey ñu wéy ci ak yéen ci wàllu reportage bi nga xamante ne nii moom lañ leen jëlee lil Mbàkke Kajoor atum 2013 seen groupe Istikhama di leen ko indil kon ba tey ñu wéy ci liggéey yooyu nga xamante ne mooy ziar yi ak waxtaan yi nga xamante ni seq nañ ko mbokki taalibe yi ak kilifa yi nga xamante ne ñoo ñuy xamale ak bis bi ba ñu bàyyi koo foofu itam euh, dugg nañ ci dëkk bi dëkk bi fees dell mbokki taalibe yi di ziar ñii di dem ci barabu cosaan yi nga xamante ne nii yëpp am na ci dëkk bi ñu fàttali ni Mbàkke Kajoor foofu la yoonu murit sosoo mag ñi nga xamante ni nii ñoo njëkkoon a ànd ak Serigne Touba foofu la ñu àndal woon ak moom foofu la Serigne bii nga xamante ni itam mooy Serigne bu mag bi woowe woon euh, mag ñi xamal leen ni leen euh, képp koo xamante ni njàng kese moo leen fi indi woon man ngaa seeti feneen waaye képp koo xamante ne ni li ma bëgg nga bëgg mën ngaa des ñu bokk liggéeyal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, bis boobu ni ko Serigne Aziz waxee ca la daara ji lu tas ñaar. waaye loolu daa defar daara ja ndax ba tey jii ñi nga xamante ne nii ñoo toppoon sëriñ bu mag bi seeni sët ñoom la ñuy ziare nii ci bis bii nga xamante ne nii moom mooy bisub euh, màggalu Mbàkke Kajoor kon bi ñu bàyyikoo foofu euh, dem nañu ci kenn ci yore wàllu commission culture euh, communication bi ci wàllu màggal gi muy sëriñ Basiru moom sëriñ Bas Xuja Jeng ñu koy wax sëriñ Bas Coro moom la ñu seqal nag waxtaan yaatu woo xamante ne nii indil nañu taarixu Mbàkke Kajoor indil ñu li nga xamante ne nii moom mooy Euh, Mbacke Kajoor ak Serigne Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ni mu ko yeesalaate ci ndigalal Serigne bi ak ni mu fa nekke woon ak li waral màggal gi kon loolu mooy waxtaan wu yaatu wi nga xamante ne nii seq nañ ko ak sëñ Bass Coro ñu ànd ak moom ci waxtaan woowu nga xamante ne nii moom lañ seq ak moom euh, bismillahi rahmaani rahim wa rahmatullahi Euh, mbokk yi jullit yi yi ñuy seetaan ànd ak di ñu déglu ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu sell boobi magal gi nag euh, bi ñuy defal Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacke fii ci Mbacke Kajoor euh, xaj na bu fekkee dégg naa sa laaj ma am lu ma ko bëgg a ëndee rek Cheikh Mouhamadou Lamine màggal gi ak Mbacke Kajoor lan mooy Mbacke Kajoor lan moo indi fii Cheikh Mouhamadou Lamine mbakki Kajoor bañ koy màggale Mbacke Kajoor Cheikh Mouhamadul Lamine xam nga mooy ñetteelu doomu Cheikhul Khadim ginnaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Mouhamadul Lamine moo ñëw nekk ñetteelu doomu Cheikhul Khadim waaye bokk ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke jur wu jigéen di soxna Aminata Lô Al Mardiya di jigéen joo xamee ni euh, boo ko tuddee doy na royukaay euh, daanaka di nga koy mën a euh, tolloole maanaam ci ay qualité am ci ay jikkoom. jikko yi nga xamee ni mooy jikko yi soxna jaatatullahi mi nga xamee ni mooy way juru Cheikhul Khadim euh, euh, Cheikh Mouhamadul Amine comme ni nga ko waxee gane àdduna ci Touba ci mboolem doomu Cheikhul Khadim yëpp ban barab fi nga xamee ni fi la sëñ Bamba tëdd tey jii nii moo nekkoon néegu soxna Aminta Lo boobu Touba mën naa la jumaa ji rek wala penc bi rek moom moo nekkoon Touba noonu la yaatoo woon Touba itam noonu lu guddee woon bi mu ganee àdduna foofu. am na yu bare bari yu fa xew ci wàllu ay njariñ ci wàllu loo xamee ni ci rasulullahi lañ ko mas a déggee waaye euh, bis ba mu gënee àdduna ci lañ ko déggaat ci Cheikhul Khadim muy loo xamee ni lu lu doy waar la loo xamee ni kii la ci biir kër Cheikhul Khadim lan la loolu euh, mooy Cheikhul Khadim dafa woo ñi nga xamee ni ñoo nekkoon ci mbakki Kajoor ju njëkk ji nii wax leen ne leen gan gii kat li ngeen doon sàkku ci man gan gi ñëw na andil na leen Euh, li ngeen doon sant gaare ko ci man gan gi andil la leen ab yóbbal ab sëri ci boo xamee ni kenn ku nekk mën na caa duy ba euh, feesal ci la woo kenn par kenn laaj ñooñi ne leen ana loo gën a bëgg àdduna ak àllaaxira kenn ku ne wax ko mu ne ko loolu defal nañ la ko nga xamee ni bi mu gënee àdduna ci la yoonu mu murit tàmbali di seexal ñooñi nag ñooy ñan ñooñi départu mbaki Kajoor mbaki Kajoor Mamour Anta Sëri moo ko sanc moo ko sanc man na maa wax environ euh, mbaa boog lu jiit en mille en mille cent quatre vingt deux mën nañu wax ay quatre vingt ba quatre vingt et un xaj na Mamadou Anta Sali ci la sañ ci dëkk bi euh, sëriñ Mamadou Anta Sali yàggul ci dëkk bi maanaam ñaareel rek la fi nekk daadi di wàcc liggéey bi mu wàccee liggéey ci la Cheikhul Khadim daal di jël relais bi maanaam fas yéene donn woy juram ci wàllu xam-xam waaye ci wàllu yitte yu bare bari bari yi nga xamee ni sëriñ Mamadou Anta Sali xam nga moom dafa nekkoon sëriñu sëriñ si moom Mamadou Anta Sali fii daara la woon mbooleem maanaam biir Sénégal biir Afrique yoonu Mouride ak fur yoonu Mouride sax fii moo nekkoon université bu mag fii la jàngukaay bu nekkoon digga da dégg ay borom xam-xam yu mag ci yoonu Mouride sëñ Dame Abdourahmane Lo Cheikh Massamba Diop saam waaye Cheikh Rama Sar Diagne wala ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu même burut ci tarixa muridiyya bi itam même burut ci biir Afrique bari na ñoo xam ne ni fii lañ jógee dañ daan laxas di bàyyi seen i soxna bàyyi seen i kër daan ñëw fi di jàng ci Mamadou Anda Sall mu nekkoon daara joo xam ne daara ju mag la mboolem jinseer yëpp maanaam mboolem race yëpp ñoom ñu nekkoon fii doon jàng bi mu ñaari at la fi def nag mu euh, daal wàcc wàcc liggéey euh, euh, bi wàcc liggéey xam nga ñu ngi koo yóbbu dëkk bii nga xam ne dendal muy deqale deqale tax ñu yóbbu ko fi itam Mamadou Ando Sali xam nga sax ma ndumbe Diop ak kokk yi doomam bu tudd Massamba Anta Ceeba Diop moom moom moo mayoon wér du xaadir sëñ Mamadou Ando Sali moom la tudd itam sëriñ Massamba Mbacke bi mu wàccee ab liggéey ci lañ wax ni kon nañ ko yóbbu foofa ndax foofu mooy <laughs> waa dëkkam foofu mooy suufam kooku nag moom moo sanc moom moo sanc la euh, ma sàmb ànd ceeba jox moom moo sanc dëkk bu naan deqale fii nga xam ne ni moom la Cheikh Mahamadou a Mbacké euh, mujjoon dekkalaat def ko dëkk boppam ba Cheikh Mahamadou Fadil euh, Mbacké Mourtada fa la nekk sax mu nekk dëkk Cheikh Mourtada nekk dëkk boo xam ne dañ ci yoonu murid bu mag a mag la taxul mu sori ñu lool bi Serigne Touba yëree daara ji xam nga ci gàttal benn bis dafa ba mu xëyee dafa daal di annoncé woon ni ñëpp ne leen yëf yi kat njàng mi ñu doon jàngale tey am na lu ci ñu duggaat tey euh, am na lu ñu ci war a defaat njàngum kese doon rek waaye tey dañ koy soppi am na leneen lu ñu ci war a dugalaat ci wàllu njàng mi mooy wàllu tarbiya mooy wàllu tarqiya bi mu waxee loolu ñu baree bari nag daal ni sëriñ bi daal lim ñuy woo ak ñu li fi doon wut bokkut ak loolu ñu baree bari daal di dem ñu néew daal di des loolu boo demee ci irwaaw na diin cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana dana la ko la mu ne la zahabal jullu wa baqiya al kullu maanaam ñu bare bari dem nañ ñu néew ñoo fi desoon ah di wax naan képp koo xamee ni li ma bëgg bëgg na ko yoon yu may jaar ci la bëgg jaar na ñëw ànd ak man waaye koo xam ne sa moo xool la beneen yoon kon na dem sàkkuwaat feneen waaye man lii kat rasulullahi moom ma feeñu waxanteeg man ngir ma war a taxawal yoonu murit fii ci Mbàkke Kajoor mu mu daal di waxal bopp mu sëñ Bamba daal ni shaafahani rasulullahi bi qawlihi rabbi asxaabaka bil himmati waaye wala turabbihim bi darsi faqat wa rabbi kulla wahidin minhum bi ma bihi ah, eh, ci la yoonu mu soosoo ki njëkk a jébbalu lépp ci gàttal ki njëkk a mooy sëriñ Adama Gueye Cheikh Rama Sar Ndiaye sëriñ Massamba Diop Sarr sëriñ Abdourahmane ah noonu la eh, ci yoon yu tàmbalee même ba Serigne Mor Ndiaye taggaar mi nga xam mooy fukkali ku jébbalu moom moo ñu doon nettali li nga xamee ni noonu la yoonu murid euh, amee fii nag ci Mbàkke Kajoor fan ci Mbàkke gu mag fee la sëñ ba fee la sëñ Bamba nekkoon foofu noonu ci kanam noonu tuuti foofu la nekkoon loolu lépp foofu la xewe woon bi mu euh, bi mu defee loolu nag kon mbaki Kajoor yoonu murid mu sos 1882 Serigne bi tàmbali woote kon dëkk bi mën nañ ci diggee ne kon fii la yoonu murid sosoon nekkati fu taal wala fu tàkk fu ne ci fii lañ ko taale fii nag njabootu sëriñ bi bari na fi lool fii nag nekk na dëkk boo xamee ni dëkk la bu am solo boo xamee ni moom mooy ndeyu yoonu murit dëkk la boo xamee ni euh, symbole la wala ci gàttal daal moom mooy cosaanu yoonu murit lépp lu sosu fi la sosoon jàngkat yeeg borom xam-xam yi ba ñi ma la wax ne la bi sëñ Bara gane àdduna sëriñ bi da leen a ne lu ngeen gën a bëgg àdduna ak alaaxira mooy ñi ma limal Cheikh Rama Njaañ boobu fekk na si Adama Gueye gën a euh, euh, euh, gën a àdduna waaye Cheikh la sëñ Massamba Diop Sam ca la sëñ Abdourahmane Lo Cheikh Rama Fall ñoom ñëpp bis ba sëñ Bara gi àdduna ci leen leen wàcc ne leen gan gi indi leen li ngeen doon sàkku àdduna ak wax leen ca a nettale li nga doon sow àdduna ak rek gan gi ñëw andil na leen ko bis boobu nag mooy bisu Mbàkke Kajoor bis boobu dañuy màggal ah lan euh, fii itam maa ngi gis Bamba dem ngeen fa Cheikh Ibrahima Fall fi lay jëbal ak sëñ Bamba fii daal mooy cosaan yoon wut lu bare bari xew na fi ngir tënk ba ñu guddal moom moo tax itam mënumaa dem ci détail yu bare bari lan mooy relation lan moo fi andi Cheikh Mouhamadou Lamine Cheikh Mouhamadou Lamine sëriñ Bamba ci ndigalam moo ko jox ne ko jox naa ne ndigal nga dem dëkk bu nan Sanosi si bu dee tuddee si nag daan fa fekk borom xam-xam kilifa gu mag muy sëriñ Sirilo ku bëgg sëñ Tuubaa waaye borom xam-xam bu mag a mag mu dënd ak sëriñ Baara sëriñ bi yebal ko ci moom mu dem mu sancal ko këram taawu sëñ Baara fa la gën a àdduna sëriñ Muudu Baara en diis mooy mooy awlu sibtu Seex Xaadim mooy première sëtu sëñ Bamba maanaam bi si fa am moom sëriñ Muudu Baara Mbàkke bi mu gënee àdduna en 1910 ca déwén sa maanaam ca catul 1911 ci la ko sëriñ bi daal di jox ndigal ne dama bëgg foofu yi kat la ma la doon def loo mat na foofu dama bëgg nga demal ma Mbàkke Kajoor soo demee nga toogal ma fa nekkal ma sama jëm lu ma waroon a wax mbaa lu ma waroon def nga defal ma ko foofa nekkal ma fa loolu moo indi Serigne Bara fii ci Mbacke Kajoor ndigal loolu ah, ah, tamit mu nekk taalib boo xamee ni ndigal rek la mas a déglu moom sëñ Bamba rek la sëñ Bamba rek a ko ñor moom euh, léppam sëñ Tuubaa la ay yëngutoom ay dalam léppam moom Cheikh Mahamadou Lamine maanaam dafa ñëwoon ngir jàppale Serigne Bamba ci yan bi nekkoon koo xamee ni ci ron sëñ Bamba rek euh, gëmutoon bëggutoon yaakaarutoon xamutoon kenn ku du sëñ Bamba rek lu benn xalaat comme ni Aboubacar Sadiq mel ci Rasulullah lu ma wax rek mu daal di def moom waaw na dégg moom facilement day exécuté facilement sëñ Baar noonu la demoon. sëñ Bara itam bind na ko ne asina lii min sanus bintiqaal ila madinati laha mbakke yuqaal maanaam sëñ Bamba moo ma wax ma jógee sànnoosi ñëw dëkk bu naan mbakke kajoor ngir toogal ko fa wax na sax ba ni ma ji una maanaam dikk bi ñu dikk ci mbakke kajoor mi ngi dëkk ko ama l'assassin l'assassin mooy 1330 ci hijriya légir waaye itam euh, bu dee ci datu wolof bi ni mooy en 1912 maanaam ci commencement bi mooy feew 1911 jàpp 12 ci la Serigne Bara ñëw fi ci dëkk bii di Mbacke Kajoor ci ndigalu Serigne bi fi la toog sanc fii nekk fi ci ndigalu Serigne bi booba mi ngi ne euh, booba mi ngi nekkoon ci Mbacke gii nii ci wetu buntu kër Serigne Cheikh Matale foofu noonu foofu mu nekkoon Mbacke gu euh, mag mu nekkoon ku ñuy wax jàmbar ju mag Serigne Amar Fall Mbacke Serigne Amar Fall Mbacke mu nekkoon ak moom nekk naag moom juróom benn weer bi ñu soog a daw waaye juróom benn weer rek mu doon préparé pour defar këram mu defar këram kër gi daanaka Serigne Cheikh Matale ci ginnaaw gi ci la soog a ñëwaat fii sëñ Baara nekkee noonu euh, ci biir Mbacké Kajoor ba fi la génne àdduna euh, su ma su ma jumu sa jàpp na dem ngeen fi nga xam ne fa la génne àdduna loolu moo ko indiloon ndigal loolu moo tax mu sax fii nekk ba mu génn àdduna sëñ Moudou Moustapha jox taawam boobu euh, sëriñ Moudou Baara pour mu indi ko Touba bu ñu ko andee Touba it am na ay kiimaan yu bëree bëri waaye xajul ci lii ñuy wax ci gàttal waa ci déwén am 1937. ci la ko sëriñ Muudu euh, Baara tàmbali nag di màggal euh, ci la ko màggal dëkk bu naan Taysiir màggal na ko ba 1952 mu jógee fii sëñ Abdoul Aziz Mbacké nekk fi en 1952 ba 1990 jamono bi bi sëñ Abdou Khadir di wax ci liggéey ñoo bokk ci biir semaine boobu la waaye kenn ku nekk itam doxal gi doxal goo xam ne nii dox bu am solo la gën a xamale waat sëñ Baara jàngale waat Cheikh Mouhamadou Lamine euh, gën a xamal kan mooy Cheikh Khadim en 1990 kan Cheikh euh, Sidi Moukhtar Mbacké euh, daal di yor xilaafa gi bi ñu yor xilaafa gi sëriñ Sidi Moukhtar jëmm la joo xam ne nii qualité am ay melokaanam dox yi nam kooku duñ ko laajati ci adduna bi ndax nakira la euh, euh, woon joo xam ne tey mujj na nekk maarifa moom Cheikh Mahamadou euh, Serigne Sidi Mokhtar ci taxawaayam ci bëggam lu baax ci teeyam ci dimbali doomu aadama ci saytu njabootu boppam mais njabootu Serigne Touba ak naal yu mag yi nga xamee ne bëggul lu ndamul Serigne Bamba donc kooku mooy loolu ma rasa ko wax ci ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mm, mii bi mu toogee xalifa bi mu jógee Serigne Saliou Mbacké Euh, ñu koy ñaanal suñ borom yokk ay leeral te taas na ci barkeem moom moo jox ndigal sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke woo ko ba mu ñëw mu wax ko lam soqoon ak way juróom sëriñ Baara sëriñ Saliou ku xam sëñ Baara la nett nañu lu bare bari nett bare waaye comme que waxtaan bi ci kanam dañ ko gën a di yaatal fële yooyu foofu lañ ko bëgg a indi waaye tey itam jotaay bi kon du ñu may itam ñu mën a ak euh, euh, leeral lépp waaye lu la wax ci fi sañ Baara diggante sëñ Saliou sëñ Abdoulaye Mbacke sëñ Moudou Mamoun ñu ngi sëñ Thierno Diouf Lambaye ci ñooñu ñoom ñooñu xamal kan mooy Cheikh Mahamadou Lamine kenn mooy jëfam euh, référence yooyu moo tax li ñuy wax itam faaw kon nga teg ko fu leer pour archive yi ngay wax nekk archive yu leer nañ sëriñ moo jox sëñ Sidi Mokhtar ne ko bis bi sa mag yi doon màggal bisub gane bisub bi metti ab liggéey nañ ko soppi andil ko ci bisub ganek adduna bi ndax bisub gane adduna bi amoon na ay xéwal yu ci nekkoon mooy xéwal yooyu ma la wax xéwal yooyu nag damaa bëgg ñi nga xam ne fekk wuñ ko woon ak ñiy ñëw mën a bokk ci xéwal googi euh, loo tax mu soppi loolu moo indi màggal gi ñu indi ko nag tey ci ganek adduna fi ni nii moom la ñuy màggal gane gi nga xam ne ci la sëñ Bara ganewul adduna ca Touba ba sëriñ bi waxoon lam waxoon ah loolu yi nag moom la ñuy fàttaliku tey ngir bëgg ñëpp jariñu ci muy euh, benn muy ndigal loo xamee ni Serigne Saliou moo ko joxe dëppoog la Serigne Bamba xoon mu dal nit ña ñëwaat ci dëkk bi nga xamee ni fi la Serigne Touba sose fi la yoonu mu di départ ak li fi nekk ak li fi nekk ci doomu Serigne Touba même ba ci kër gi ngay kii nii sax ah même euh, dan lay leer sax nee na daanaka foofu joggi sax mën nañ la wax ne jog nga ci ci njabootu Serigne Touba fii nii. waaw nga xam ne ni dëkk la boo xam bu barkeel la dëkk la bu am solo dëkk la boo xam ne sëbul bi rek doy na euh, ci Cheikh Ibrahima Fall ci la jébbalu ci yoonu Mouride mooy gi gis Bamba kon daal su ma doon mën a taarixal dëkk bi lii moo fi indi Serigne baara lii moo jotale mbakk Kajoor ak sëriñ Bara Serigne Touba itam bi membre artistes yi demee moom da koo mu nekk dëkku boppam moom dëkk bi daal di fas yéene jël doomam nag ne ko kaay nga toogal ma sama dëkk kaay nekkal ma fi nekkal ma sama jëmm lu ma war a wax lu ma war a def lii moo fi indi sëñ Baara ba tey ji ñu ñëw di màggal Mbàkke Kajoor bi mu ñëwee mu sanc nii ah, ah tabax fi jumaam jooju nag loolu moo sabab itam sët yeeg doom yeeg ñëpp itam def seeni i kër tey ba mu nekk Mbàkke Kajoor ba mu ne Mbàkke Kajoor dig digal bii ah bu njëkk bu euh, njëkk bu masaan wax Mbàkke Kajoor mooy Mbàkke gu mag gañ di wax fa la sëñ Bamba nekkoon te ba léegi tam mooy Mbàkke waaye nag màggalu sëñ Baara gii fii nag ci Mbàkke gii nag la xewee waaye nag yoonu murit amul dara luñ ci gàttal lépp dafa war a ëmb ñëpp lépp dafa war a yaatu moo tax mbàkke géeg mbàkke yëpp yam eh, eh, eh, benn la ci biir loolu sax ñoo ngi seet sëñ Abdul Xuduus ak mbooleem njabootu mbàkke Kajoor ak mboole kilifa yi nga xam ne ñëw nañ dëkk ci dëkk bi te nekk fi tam te participer ci màggal bi loolu mooy li nga xam ne daal moo indi sëriñ Baara Mbàkke ci bis bi ci dëkk bi ak ni mu demee noonu ci gàttal rek xam nga dëkk bi itam xam nga soos bi mi ngi jóge ci Maam Anta Sali xam nga moom ci xam-xamam Lat Joor da koo dafa da koo nawoon ci wàllu xam-xam ba nappi itam bëggul a nekk ab jullit itam bu leer nañ ñi mbaa bëgg mu nekkoon jullit bu leer nañ mu ne ko nag dama bëgg lëngoo ko mel ni yow ànd ak ko mel ni yow ndax nga di ma àtteel njaboot gi ndax boobu moo nekk président léegi te faw war naa soxla benn procureur général boo xamee ni moom mooy war di doxal yow mais eh, eh, eh, sëñ Maodo Sall yi ne ko nag du mën a dëkk ci dëkk bii nga dëkk ndax man baykat laa ab jàngalekat laa te bëgguma samay ñoñ ñu jaxasoog waa taax yi tey itam damay bay te te dëkk bi itam mun ma fee nekk itam di bay li ma war a bay kon nag faaw ma am fa ma sanc foo xamee ni du sori su altine jotee ma daan ñu attale li ma lay attale loolu moo indi mbakkayor moo indi itam euh, proxaan moo indi itam yu bari ci ma ba jox waaw kon loolu mooy li nga xamee ni moo sos Mbàkke Kajoor lii te moo fi indi si amoon nañu bari jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu ànd ak yéen ci reportage bi ginnaaw bi ñu bàyyeekoo ci Serigne bas Coro mi nga xamante ne nii moo yoroon wàllu communication bi doon waxtaan ak ñun ci cosaan ak taarix ak euh, màggal gi nga xamante ne nii moom la ñuy amal fii. ñu ànd ak yéen kon ci image yi nga xamante ne nii moom lañ ko bëgg a tëjee muy image yu cérémonie officielle bi di waxtaan wu am solo woo xamante ne nii am na fa ginnaaw bi ñu jullee tàkkusaan mboolem kilifa yi daje euh, waa nguur gi nga xamante ne nii ñooy gouvernement du Sénégal. yabal euh, ay kilifa délégation bu am solo ñu seq ñoom waxtaan ñu yaatu yoo xamante ne nii euh, am ngeen ko ci yeneen éléments yi nga xamante ne nii moom lañ leen jëlalil te mu nekk ci biir site bi nga xamante ne mooy istikhama point org ñu partagé ko itam ci youtube bi ba ñëpp war koo mën a am man koo gis li nga xamante ne mooy cérémonie officielle bi kon image yooyu lañ leen di tàggoo ci reportage bu mag bi nga xamante ne nii jëli leen leen ko ca Mbàkke Kajoor mu dëppoog mercredi 10 avril 2013 di le 28 jumaadal ula di maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent ci gàddaay gi seen groupe Istikhama jëluleen leen ko ci image yu Abdou Baaxe ja ci commentaire bi ak montage yi seen mbokkum taalibe Moustapha Ndiaye wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu